jox na tey ñi abonné gul abonné leen gaaw activé notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jaa ngeen jëf.